xam nga damay def musique damay def cinéma comprendre nga ah si en même temps di def euh, di def commerce parce que li tax may def yooyu yëpp dafa nekk ci man man presque euh, nekk naa Sandaga di fa jaay ay dix ans ma fay jaay fecc naa bale six ans parce que danseur laa waaw xam nga suma Yves bi ñu may wooye ni bu may fecc fënki la nekk ci xumbal di fecc man a fecc loolu ñu may wooye Yves Niang comprendre nga ma nekkoon bale Moussa Pathé di fecc di fecc bale dama man fecc bale yaa ngi dégg mujj gi ma dugg ci simb yi jàng yi simb jaar dugg ci ngénte yi jaar ci kasag yi jaar ci mbappat yi jaar ci lépp léegi aar boobu nekk ci man nag moo tax may exploité ko dama dem ba benn producteur gis ma jox ma benn film boo xam man maay acteur principal bi muy alliance d'or ñu ngi koy tourné bientôt dina génn incha allah kon li may def bëri na xam nga boo gisee may dugg ci yooyu yëpp damay toog des fois gis benn artiste ñu koy ketal mu feebar wala fa mu dëkk ñu koy génne xam nga wax yoon la tey ji artistes yi xippi am na benn jour benn artiste goo xam ne artistes dañuy dem am seen benn cinq cent mille duñ ci jënd benn micro mais lépp la ñuy jënd yëre solo ko mais duñ jël benn micro bu cent mille francs wala deux mille francs xam nga topp àdduna bi rek mu neex solu neex na dund neex na mais nga sooraale comprends nga ëllëg boo demee ba dem retraite wala say doom màgg nga mën leen jàppale moo tax aar bi rek doyul il faut que artistes yi gëstu dem xool leneen def leneen soo amee xaalis nga investir ko feneen Yves Niang foofu la toll